بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس ما كسبت أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبلسوا بما كسبوا لهم سراب من حميم وعذاب عليم بما كانوا بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم بور سبحانه وتعالى من وإذا رأيت سو gisee yow Muhammad soo fekkee alladina gaa yi nga xam ne yaxuuduuna dañuy xuus fi ayatina ci sama alquran bi ñu ci xuus di ko ŋàññi ak di ci wax loo xam ne jaaduwul faarid anhum dummóoyu leen bul toog ak ñoom bu leen def ay mbokk bu leen def xarit waroo toog ak ñoom ci benn place boo xam ne dañ fay ŋàññ aaya yàlla yi kon soo déggee lii tey lu muy tekk mooy Sénégal waroo toog fenn ah Sénégal kon benn mbooloo waroo faa toog ndax fii sunu grand place yeeg sunu mbooloo yeeg sunu mais xataa waxtaanu diine yenn saa yi nga fekk fa ñuy ŋàññi lislaam di ŋàññi alxuraan ah ñaata mbooloo islaam ngay toog ñu naan alxuraan rakkal la alxuraan jarut a jàng ah ah julli daal amul njëriñ. julli du tax a dugg kenn àjjana xol bu set rek a takk ñaata yàlla waxul kenn dara ñaata place ngay toog dégg wax dégg loolu yàlla ne wa izaa ra'ayta soo gisee allazina gaa yi nga xam ne yaxuuduuna dañuy xuus fii aayaatinaa ci sunu alquran bi di ko ŋàññ fa aarid anhum dummóoyu leen xataa yaxuudu ba ñu xuus fii hadisin ci beneen waxtaan xayrihi bu bokkul ak bii saa yoo fekkee ñuy ŋàññi lislaam waroo faa toog demal ba ñu changé thème ba ñu changé sujet ba ñu changé waxtaan nga ñëw toog waxtaan ak ñoom waaye nga ñëw fekk fu ñuy ŋàññi lislaam ah ñii nangam ak seen sikkim yi gudd yeeg seen tube yi gàtt yeeg seen muuraay yeeg seen nangam yeeg seen nangam yi nga toog ah xam nga bàkkaar de fu ñuy xase yàlla moom comme munoo ci dara bul toog jógal yàlla ne muhammad wa imma yumsiyannaka seytaani amaana yenn saa yi seytaane fàtte loola nga toog waaye saa yoo demee ba fàttaliku ko falaa taqud bul toog bul toog baada zikra ginnaaw bi nga ko fàttaliko yenn saa yi nga toog ci place ñu fay mokke diine xëy na seytaane fàtte loola wala toogaay bu yàgg waaye nga jékki-jékki rek sa xel dem ci waaw waa ji li mu fi wax léegi-léegi mais du diine comme munoo koo weddi munoo ci dara jógal dem ah benn boroom xam-xam daf ñuy nettali dafa aji mu ànd ci benn délégation boo xam ne ki ko jiite woon kilifa diine la ci kilifay diine lislaam yi ci Sénégal mu ne ñu dem ba benn place ci Màkka ñu war a boole julli takkusaan ak julli tisbaar ca Musdalifa dañuy boole julli tisbaar ak takkusaan mu ne ñu nodd julli tisbaar sëriñ bi daa comme sëriñ bee jiite woon mu ne waat nañ nodd ah borom xam-xam ne ko déet sëñ bi waru ñoo nodd de gars yi ne waay waay comme xam nañ ne ab sunnit la rek waay noddal waay ñii nii rek lañ mel ñu dem di fa wanewu noddal ah sëñ bi ne noddu leen ah ñii sikkim yeeg ñii billaay ñoo lëj le ñu daal di nodd ndeysaan bi ñu noddee daal di julli pare moom nee na ma gedd man tamit bi ñu noddee rek ma gedd comme ñoom it nodd nañ ma fi duma fi julli mu dem bi mu demee rek sëriñ bi daal di koy wool nee na ma ñëw sëriñ bi daal di génne benn téere bu tudd risaala ne ma sànq bi ñuy julli dafa am loo fi wax nga dem te man nag lu may def ci xam-xam laa koy teg kon man bi ma nee nañ nodd fii laa ko teg mi ngi nii yow nag léegi ci biir nit ñi de dañoo bëgg nga wax ñu yow it foo teg li nga wax ne ko sëriñ bi jërëjëf dal na la yàlla fay ci bëgg gi nga bëgg xam-xam ak tamit ci ñeme gi nga ñeme dëgg ndax lii nga def nii bëgg rek dëgg leer moo tax nga def ko waaye mënoon na la cee bañ a fekk bu la neexoon nga ni nañ nodd ñu nodd nga julli daal di tëdd jàpp sa njàmbur mais soo demee di gëstu di xoolaat sa téere di jàngaat da ngaa bëgg mbir mi leer mënoon naa leer ci yow sax nga noppi bañ maa woo waaye li tax nga woo ma encore mooy pour dëgg gi gën a gën a leer jërëjëf mu ne waaye sëriñ bi yonente bi ñaata yoon la mu saaj sëriñ bi ne ko benn yoon mu ne ko kon mbir mi mënut a leer ndax yonente bi benn yoon la ko def te yonente bi ba mu ajee mu ñëwee ba musdalifa benn yoon lañ nodd daal di boole julli yi mu ne ko sëriñ bi téere bi nga jàng moo la nax téere bi dafa def ixaam ne nañ ko def nañ def ñaari yoon mu ne waaye ixaama la wax dafa juum yow nag juumoo téere bee la ndax ndax xadis yi lii lañuy wax daal di génne xadis yi woon sëriñ bi sëriñ bi ne ko wallahi yaa nekk ci dëgg xam nga lu tax lii yëpp nga nga dugg ci yow tamit da ngaa bëgg sunna moo tax sa ñeme sunna moo tax da ngaa fiir yow ku fiiral yonent bi nga waaye bis ni ki tey def naa la xarit def naa la doomu ndey ngelawaay bu ñibbisee Dakar danga ma ziyaar sa mbokkum jullit la maa ngi lay xaar de naa la boo ñëwee naa la reyal xar teeru la ndeysaan kon bëri na ci ay place tey ci Sénégal wala ci àddina bi fu ñuy mokkee diine nga defe ne tey ci àddina bi fi ñu toll bu fekkoon ne julli ñi li ñuy wax dëgg la ay ay nit ay bandi di xas yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko dessiner ah dese dessin yu ñàng yoo xam ne kuñ ko dessiner woon tey sa pap wallahi ki ko dessiner doo ko bàyyi mu mu nekk ci àddina bi ah waaye xoolal Sénégal démb ñëpp a génn di jubilé parce que Sénégal dafa gagné alaysa kazalik waaye ñu xas yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp yi kenn yëgu ko liñ génn démb di yuuxoo jaar ci mbedd yi nangam nangam loolu fee la waroon mi ngi waroon ci liñ xas yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëpp génn marche jëm ambassade Danemark ñu ex ñu exiger Ablaye Wade bu fekkee ne Danemark dafay am ambassade nañ ko tëj mais malheureusement. alquran waxoon nañu ne taxsabuhum ayqaaz wa hum ruquud da nga yaakaar nit ñi dañoo yeewu fekk dañuy nelaw El Hadj Umar nee na ku dee am nga ku la jooy ba mu des diine ku dee ku ne danañ la jooy ba mu des diine wala ay ay bit la ñuy dugal ay nit di dee ñu xas yonent bi kenn yëgul lu xew Sénégal xamuñu woon lu xew di kenn yëgul te affaire bi fi mu nekk nii léegi moo weer mais Sénégal fan yi lañ ci mujj mujj jot fan yi lañ ciy jot ay ñetti fan ñeenti fan. soo demee internet da ngay waaru kon yàlla subhanahu wa taala nee na wa imma yumsiyannaka amaana mu fàttele la mu fàtteloo la a cheytaanu cheytaane kon soo demee ba fàttaliku ko wala taqut bul toog baada zikra ginnaaw ba nga ko fàttalikoo maa qawmi zalimin ak nit ñooñu nga xam ne ay tooñkat lañ gis nga ay tooñkat lañ wala ku tol na yonent bi ñoom xasuñu kenn actuellement nii ci monde islamique xasuñu benn sëriñ xasuñu kenn kan lañ ci kan lañ dem Muhammad ah nga xam ne mooy mooy tet bi des na ko fii daan ne ku bëgg jigéen la benn jigéen nekk ndeyjoor benn jigéen nekk càmmoñ ñu muur seen kanam yi nag ba fii des na ko fee mu yor jaasi ñu des na ko fee ngandum bopp bopp bi am mbomb ah dessin yeneen yi moom jarul sax nga koy wax loolu dama ne bu ñu ko dessiné woon tey sëñ Saali wala ñu dessiné ko sëñ Mansour ah wala ñu dessiné ko sëñ Muntaxa wala ñu dessiné ko Ibrahima Niass wala Seydou Nourou wala Alaaji Malick wala Serigne Touba ñu dessiné ko luy xew ah ñu dem fii rek la waa jooju def benn film def ci ay xasaayit nu waa ji tuddati gars yi dem foire dig ne dañuy màbb foire foire la lañ la xanaa duñ mën a ñii ñoo gën Muhammad inna lillahi wa inna ilayhi rajiun la ilaha illallah fa imma yunsiyannaka amaana mu fàtte mu fàtte loola as seytaanu seytaan soo ko fàttalikoo falaa taqut bul toog baada zikra ginnaaw ba nga ko fàttalikoo maal qawmi zaalimiina bokk ak nit ñi nga xam ne ay tooñkat lañu wa maa ala allazina warul gaa yi nga xam ne yattaquuna ñoo ragal yàlla min xisaabihim ci seenu att min cheyin ci dara gis nga ñi nga xam ne ñoom ñoo ragal yàlla ah ayu ñi nga xam ne ñoom ñoo ragal yàlla ñoom day amuñu droit di juger kenn yàlla mooy àtte wax ne wama ala lazina warul gaa yi nga xam ne yattaqu na ñoo ragal yàlla min xisaabihim ci àtte ñooñu ci rek le leen min cheyin ci dara walakin waaye zikra dañuy fàttali rek ah yéen kat place bi ngeen toog yéen a ngi fi wax loo xam ne jaaduwul waaw yéen a ngi fi wax loo xam ne islam da koo ŋàññ moo tax kenn amul droit man de ñaanuma yàlla ma fekke fenn fu ñuy diingata sharia wala sunna doonte ne sama bakkan dina fa des dinaa dinaa ko dinaa ko weddi keroog bu yeboo sax ñu wax lu ne bu yeboo ñu ne da ngeen a réew bu yeboo ñu ne xale yu amul yar ngeen bu yeboo ñu ne amu leen teggin bu yeboo ñu ne nangam ak nangam waaye fa nga weddi ko rek weddi rek bu mu set waaw yooyu kenn du ko négocier yàlla nee na walakin waaye zikra fàttali la laallahum ndax ñoom yattaquun amaana bu ñu leen fàttalee ñoom ñu ragal yàlla kon war na jullit yi jullit yi du ñu àtteñee waaye dañ leen di fàttali yàlla mu nee na muhammad wazari bàyyil alladina gaa yi nga xam ne ittaxasu dañoo jàpp diinahum seen diine laiban fo bàyyil gaa yi nga xam ne seen diine yëpp fo la diine sénégal diine lan la diine fo la rek diine joo xam ne ndënd yeeg sabar yeeg ci meeg laay da ngay gis laa ilaha illallah rëngët dël tulli jigéen ñi tëb di fecc ñu ne na xumb te dagan na xumb te dagan ah ñaata yoon ngay dégg lool allahu akbar yàlla nee na wazari bàyyil allazina gaa ñi nga xam ne ittaxasu dañoo jàpp diinam seen diine laiban fo wala woon ak caaxaan mboosóor mooy suñu diine diine caaxaan ak fo wa garrahum lo xam nga lu tax ñu def loolu wa garrahum daf leen a war alxayaatu dunia dund àdduna moo leen war tey boo xoolee sëriñ mus naa jamono yi ma nekkee ci daayiratul mustarshidin wal mustarshidat am benn waay bu aye tuur ma toog ci tuur bi daa du ma sunnit de waaye maa ngi jàngee ci sunnit yi waaye nag jot nañ maa tuuf ba nga xam ne jox nañ ma ci fit loo xam ne moom moom sunna moom fu ñu ko dajjee donte ne bokk guma ci damay riposte parce que jàng naa ko xam naa ne mooy dëgg ustaas bi di waxtaan benn ustaas bi di waxtaan ba càgg mu ne waaw am bi ñu guddi àjjuma gi jeexee ñuy laaj benn femme daan ne waaw man damay laaj mees wala xeesal lu ci islam wax ustaas bi ne ko non sëñ Mansour nee na mees ak xeesal moom bu ñu ko bëggee tere nit ñi kon diine ji xale yi duñ ci duñ ci dugg ma ne ko hé sëñ Mansour moomul diine bi wallahi maa ngi koy fàttali nii laa ko waxee ma ne ko dama ne ko oustaz mu ne ah ma ne ko sëñ Mansour moomul diine bi diine bi diine yàlla la tur bi ne teg gis nga réunion ba ñu demee réunion dañu ne waaw na am na ay am na ay coow sax yu xamoon aw xawoon ci daayira bi waaye daal ñu ngi fàttali membre daayira bi daal ku dem daal na nga jéem a nekk taali bi man du ma ko fàtte mu ca réunion ba loolu la ñu wax wala réunion de bureau man tamit waxuma ci dara man ko man wax naa la ba doon wax terminé. mu ne ba ñu yëgee ñuy teg ay quelque temps ñu dégg suñu laa ñu ah koo koy xamoon lañ ko koo koy du fi yàgg koo koy sëñ bi moo yël bu mu daanu dañu ne sëriñ bi day day day day yël ñu ne kaar kii bu nekk année bu nekk day yëngatu su yëngatoo nag taalibe yu dëgëru li ñooy daanu ñu ne léegi moom daa yëngatu man ma daanu loolu la ñu wax ñu ne sëñ bi yël bu ma daanu baax na jërëjëf jërëjëf sëñ bi kon yàlla mu ne wa zakkirhum na wa zakkir bihi na nga fàttali ci alquran allahu akbar wa zakkir bihi na nga ci waaraate an allazina ga loolu la de an tubsala balaa ñuy takk balaa ñuy yeew nafsun bakkan bi maa kasabat ci lépp lu mu fàggu woon te lay salaha fekk amul min dunillahi ku dul yàlla wali yun ku muy féete mbiram wala shafiq ku koy ram waaw an tuslama fa tuxasu fa tuxbasa fi jahannam nañu waar nit ñi waaw wa zakkir bihi na nga leen fàttali na nga leen waar an tub sala balaa ñuy yeew bakkan yi di leen yóbbu ca safara an tub sala balaa ñuy yeew nafsum bakkan bi maa kasabat ci lépp lu mu fàgg woon fekk lay salaha amul min dunillahi ku dul yàlla waliyun kuy féete mbiram wala shafiya ku koy ramm dañu waar mbir yi nit ñi fàttali leen ci yàlla balaa ñu leen di takk dugal leen bàmmeel jébbal leen yàlla ñu dekkil leen taxaw leen ci kanamu jahannam seeni seen tànk ak seeni loxo su boobaa ku ñuy jëlee ku leen ramm ku ñuy jëlee ku méngoo seen mbir fen moo tax mu ne lay salahaa du am min dunillahi ku dul yàlla waliyun kuy féete mbiram wala shafiya du ko koy ramm mu ne wa in taadil loo maandu maandu maandu wa in taadil soo maandoo kulla la addilin kulla addilin bépp maandu laa yuqazu min ha kenn du ci jël dara waaw loo maandu maandu maandu maandu al adlu huna al fada jotu maanaam loo indi ah wa in taadil loo jotu jotu jotu kullu addilin bépp jotu laa yuqazu min ha kenn du ko jël yowmal xiyaam boo ñëwee nga ni yàlla milliard bi maa ko indi ngir nga dugal maa jana yàlla neen du ma faale ma ko soxla ma xaalis parce que jaamu woon yàlla ñaareel mooy da nga dul am sax foo jëlee loo jotu yow mal xiyaam foo jëlee loo ne yàlla jàppal ci li bàyyi ma xam nga police bi léegi bu ko alkaat borom oto bi bu ko alkaat bi jàppee mën naa génn ne ko permis bi mu daal di koy nangu waaye daal di dugal loxoom ci poosam génne 1000 francs ah daal di koy dugal ci carte grise bi daal di koy jox yow mal xiyaam nag foo jëlee loo jox yàlla pour mu bàyyi la pour nga dugg àjjana wala mu ne wa in taadil loo jotu jotu jotu kullu adilin bépp jotu laa yuxazu minha kenn du ko nangu ulaayika ñooñu allazina ñoo ñi nga xam ne ublisu ay hubisu yeew nañ leen bi maa kasabu ca la ñu fàgg woon lahum ñeel na leen sharaabun naan min xamimin ca safara jahannam ndox mu tàng jër min xamimin almaau shadidul xaraara allazi laa yutaa ndox moo xam ne bu degee sa gémmiñ rek balaa muy jege rek tàngaay bi mooy ñori tuñ yeeg làmmiñ bi kon ndox moom bu duggee fu mu jëm ah xam nga yenn saa yi ngay togg ataaya wala ngay togg ci ngay togg dara ci cin kubéer gi rek boo ko nee nii saxaar bi rek moo lay dàq waxuma laak nag la ca biir cin ba wala la ca biir baraada ba imagineel safara woo xam ndox moo xam ne tàng na tàngaay boo xam ne buñ ci tànqee kopp nee na dang la koy naanal balaa bi mu jegee rek tuñ ñi la njëkk a dindi ah ba mu duggee ci biir teggi làmmiñ bi kon yàpp ba ca biir ak biir ba fu mu jëm mu ne sharaabun naan min xamimin ci ndox mu tàng bu doon lool la rek jàmm la waaye wa azaabun ak mbugal alimun mu metti bi maa kaanu ca la ñu nekkoon yakfuruna di weddi yàlla gis nga yàlla musta mbugal ku tooñu fii indi na baabi waaw ñu continué ko mu ne ulaayka ñooñu allazina ñoo ñi nga xam ne ublisu yeew nañ leen takk nañ leen bi maa kasabu ubsilu maanaam ubsilu bi maa kasabu bële de moom yóbbaale ba ca kaw ulaayka ñooñu allazina ñoo ñi nga xam ne ubsilu yeew nañ leen bi maa kasabu ca la ñu fàgg woon ubsilu tëj nañ leen bi maa kasabu ca la ñu fàgg woon lahum ñeel na leen sharaabun naan min xamimin ci ndox mu tàng jër muy wànjax nekk dëtt jahannama wa azaabun mbugal alimun bu métti bi maa kaanu ca la ñu nekkoon yakfurun di weddi yàlla sama bango bi maa kaanu yakfurun li tax yàlla def leen nii dañoo weddi yàlla yàlla mbugal leen waaw jeex na aay yi ñu doon jàng li nga ciy jëlee mooy xurmatu araam na al julusu toog fi majalis ci place boo xam ne yusxaru fiha dañ fay mokke min al islaami ci islaam wa sharaihi ak ay yoonam wa ahkaamihi ak ay atteem wa ahlihi ak ay ñoñom fu ñuy xase li ci lislaam yi waroo faa toog fi ñuy xase atte lislaam nit waru faa toog fi ñuy xase sharia nit waru faa toog amoo droit toog fa waaw fu ñuy xase sharia islam islam ci boppam fu ñu koy xasee amoo droit toog fa fu ñuy dàggasante di wekki sharia di ko dajji amoo droit toog fa fu ñuy yàqee ay atteem amoo droit toog fa fu ñuy xate fu ñuy xase jullit yi amoo droit toog fa ñeenti place yi jullit amul droit toog ñaareel wujubu war na alqiyaamu taxaw ixtijaajan min ay majlis yusa fihi llahi wa rasulihi nee na place boo xamante ne dañ fay yëjje diine di ko fa mokk place boobu jullit amul droit taxaw foofu rawate na nag bu ñu fay mokkee yàllaa kub yonentam gaa yi bi ñu dessiné yonent bi alayhi salaatu wasalaam jullit yi wax ñu ne leen dimbali leen ñu yàlla sax dañ ko war a dessiné waxuma la ak yonent bi waa France journal journaux France yi di def solidarité nee nañ dañuy dimbali journal waa ji bind affaire bi Danemark dañuy def solidarité foofu sax xoolal tubaab yi li ñuy alko alko foofu tane nañ ndax ministre de l'intérieur dafa saisir mboolem journaux yi génnoon bis boobu am na benn journal bu tudd Figaro ñoom binduñ ci ñu leen laajee leen dox solidarité leen bindu leen ñu ne loolu amul njëriñ fitna dong lay indi ñëpp a condamné kay waaye condamné dong du doy condamné dong doyul jullit ñi feek yonent bi gënul leen seen bopp jàmm amul ci ñoom annabiyu awlaa bil muminina min anfusihim ah jullit ñi buñ toogee ñuy xas yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoom ñoom ana seen ana ana ana lan la lu desati parce que bàyyi leen julli bàyyi leen woor bàyyi leen nangam ak nangam yéeféeri xam nañ ne loolu buñ ko waxee jullit ñi du leen sax faale pour ñu daaneel l'islam nag ak di ko xas symbole yi la ñuy la ñuy la ñuy viser symbole yi l'islam yi alxuraan bu ñu xasee tey alxuraan ne verset satanique la ah jarut a jàng lii nangam nangam suba ñu ñëw ci Muhammad ah suñ ñëwee ci Muhammad ñoom it wax ci liñ ci wax loolu la fi mu nekk nii bu ñu la xasalee alxuraan bëgg matuloo ko ñu xasal la yonent bi ba yonent bi amatul ci yow valeur loo dese am na benn waay boo xamante ne ci jullit Sénégal yi benn waaye ndeysaan dafa dugg ci bitig bi di naqarlu affaire bi di ko wax daan xoolal yonent bi rek ah gars yi di ko xas quoi di wax waa ji daan ne non war ngeen bàyyi nit ñi nag quoi vraiment ñu génne seeni xalaat wax quoi jullit bi war jullit Sénégal wax loolu war ngeen bàyyi nit ñi ñu génne seeni xalaat wax gën tamit nag vraiment da ngeen a da ngeen a da ngeen a ëppal quoi da ngeen a da ngeen a tar mu ne ko wax ji ñu wax yoo xam ne yonent bi bu ñu ko waxoon sa baay doone tar nañ de mu ne fi ma la su ma ne woon su ma ne woon yow mi sa sa baay bi mu lay jur juru la ci yoon mu ne ko góor gi man ngay saaga mu ne ko ah da ngaa commencé mer xaat yow lii ma la wax ni nga mer lu raw loolu la ñu wax yonent bi waa bitig bi ne ko wax na la dëgg de wax na la dëgg de wax na la dëgg de yow ñu ne la sa baay juru la ci yoon rek nga mer ah ñu ne lu raw loolu la ñu wax yonent bi kon jullit yi war nañoo mer wala war nañoo mer waaye jullit ñi kañ la ñuy mer bu ñu gañee Sénégal yaru ngeen di sonn Égypte ngi ñëw ndulli ba ngeen nooy waaw Sénégal laa dëkk nag de bu leen yaakaar ne du ma sénégalais c'est que moment bii man ñetteel masruiyatu yoonal nañ al iraada du mooy fi xaala daaf anil mustahzina bil islam ci jamonoy néew doole maanaam comme yow da ngaa néew doole nga nekk ci benn place nga dégg ñu fay xas l'islam comme da ngaa néew doole ah jógal nga dem ak ñi nga xam ne ay bànneexu àdduna la ñu dugg ñooñu am nga droit nga dum mooy leen maanaam rombate bañ leen nuyu waaw waaye tax doo ma nuyu nga ne ko yow yow kay banaa la yow mi toog fii barki dem di xas islam ma yow lu ma lay nuyu man jullit laay nuyu kay ah nga lay rawal sax nit ñi noonu lañ war a def bu dëkkeeg waa ji xas diine war a am ak moom affaire ba mu xam laaj ca xam nag waa man lu tax diw du ma nuyu nga wax ko li xew yow da ngay xas lislaam moo tax du ma lu nuyu comme yow bëggoo diine jaruma lay nuyu parce que man diine laa gëm ñun lan lañ fi am lu dul diine su fekkente ne diine buñ koy xas buñ koy mokkee ñun ñuy kontaan kay ah kon c'est inutile dama ne bu ñuy dóoree Sénégal ay nit di dee wala Sénégal di dugal bi ay nit di dee kon foofu suñ fa xasee yonent bi lu fa war a xew c'est sûr que tey bu fa ko ne wenn tubaab moo xas moo xas Sëriñ Tuuba kon Dakar tey di ngeen fa dégg guerre civile wala ah bu fekkoon Alaaji Maalik la kazalik fekkoon Ibrahima Niass kazalik mais nan ngeen mën a imaginer Sénégal ñi fi xas yonent bi kenn du wax dara kenn du yëngatu te bu ñu fi xasee sëriñ ah ñëpp yëg ko ñëpp wax wala ah dana waar de ñeenteel min ahlil quwa wa sultaan wa hasbil muminina an yurida anhum fala yufrahu bihim wala yadhaku lahum bu fekkee ne waajee la ëpp doole buur la wala borom doole la kon su boobaa war na julit mu dummóoyu ko warul kontaan ci waaji warul reetaan sax ci mbir waaji da ko war a embargo totalement comme actuellement ni julit ñi ni ñu def Danemark comme waajo Danemark mënuñu leen a jot ñu embargo seen lépp xalis bi noonu lañ def golf bi sëriñ boroom xam-xam yi ulama yi ñoo def ifta daan ne mbooleem produit buy jógee Danemark nañ ko embargo fi mu nekk nii seen usines yi commencé na tëj salaamaaleykum bismillah mooy wujubu war na at tazkir fàttali bil quran ñu fàttali al quran wa xaasa rawatina al muminin allazina yurja tawbatum juri ñi nga xam ne nag xëy na ñu doon xas yenn saa yi buñ gisee ku muur ay xoolal kii buñ gisee borom tooy bu gaat xanaa seen kër daata buñ gisee borom sikki me ñooñu nga xam ne ay julit lañ xëy na xamuñu ñooñu war nañ leen waat ci alquran mais yow li ngay ree islam moo ko moo ko santaane dafa am benn waay bu nekk inspection bi gée dag gée jawaay gi saa yi ma ñëwee rek mu ne waaye wata sa sikkim bi waay yow yooyu yàlla ni yow ma ne ko pourtant yow ñi nga gëm ñëpp am sikkim xool sa calendrier bi mu xool nga sëñ sëñ Saliou ma ne ko mu ngi ni ñi nga gëm ñëpp am sikkim waaye ma wax wax leen ñu wat ko mu ne ñii ay mag lañ ma ne ko dañooy bañ nekkee xale dañoo yoroon ba ñu nekk mag moo tax mu weex nii barki dem ma dem nag mu nopp ma ne ko alors grand bokk go kaay bokk ci association bi mu ne ban ma ne ko borom sikkim yi waaw waaw yooyu xam nga ne du ma bokk ma ne ko waaw parce que bëggoo bokk ci ñu baax ñu baax ñaa ngi nii xoolal xoolal sikkim yi ñu ma bokk gis nga lii ku baax ku ne daf koy am léegi kay mu ngi ne siiw bàyyi ma génn du ci génn waaye ma demee cabax ko benn du moo ko commencé am na problème ah waaw. non. allahu akbar. ah. dootu ko waxati. dagg moo tax ña wax yi wax yi saf ngeen leen ko ngeen leen di duut ñu xam waaw comme dañuy dañuy xas islam rek ah noo mën a gisee Karl Marx am na sikkim wala amu sikkim ah seen band yëpp am sikkim mais sikkim yooyu du ah xoolal ay Castro mais duñ ci wax. fi mu ne day gis benn waay boo xamante ne dafa cëkkal tubéyam ah cëkkal kii sol kii yam waay jëngalam kërti kërti mais kenn war dara wala pourtant am nañu koy def xoolal Michael Jackson mos ngeen gis ma sol tubéy bu gudd mos ngeen gis ñu xas ko est-ce que amul xaalis bay sol lu gudd mais nee moo ko neex mais kenn kenn kenn du ci wax dara ah mais boo nee da ngay def diine rek ñu commencé alors diin mel ne juróom benneel man maata képp ku dee alal kufri ci kéeféer lam yeen jumi na naar doo rëcc ci safara mukk képp ku dee fekk bi ngay dee yéeféer nga doo mucc ci safara is laa yujadu fidaan wala shafii yuxlisuhu min annaar bi xaalin ndax doo am loo jotu wa du ku lay ràmm ku lay musal ci safara ak mbooleem noo mën a mel nag kon na leer ci ñun ne ku dee te ba ngay dee da ngay bokkaale yàlla yéeféer nga safara rek nga jëm ñu jël ñaareelu dars bismillahi rrahmani rrahim